يسر لي ميسر العسير مختار ليبقى مسيري ولا لهم لسواي قلبها بما على سحرية مغتفرة إبراهيم تقدم لي ما توجه المكارين باق حبل بذكره والرجال أن ترديد يوم الميلاد بلا مكاره ولا أولادي رد لغير جادي شيطانا من جيب الممر ولو كان فر لغير جادي لعين يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كل يدي سفت وسفت المي أو في عهاد قال الإهام وقد دياني مال اليوم بدت لي اليوم بأب الخير أحاسني لمن خلوا وخيبا لا يتوجه لنهوي عني محمد آله وتعالى سعادتي بغير ما من كتبت وكون الحق القديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير مختاره لي بلا مسير yéen njabootu xaside yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mouhamadul Mountakha mi xam ne mooy mu ñëw fi teewal ko bi bis bi di jub sëriñ Xamsatu dafa ma jox ñaari ndigal ne naa ko ñaanal yeesalaat ndigal li ci sëriñ bi bala moo nangul bis bi waa xaside yi ma dem ci sëriñ Sidil Muxtaar mu ne ma fekk naa ko ci nañ ko fonk te yokk ko ba mu mel nu mu mel te ànd naa ci ñoom ci biir ak ci biti mu ne ma sëriñ Seex mi fii sëriñ Soxna bi itam dëgg la àndoon nañ fa daaw mu ne ma yow Abdou Samad jox naa la ndigal ngay dox ci kanamam di ko liggéenti lépp ci sama ndigal jëru nga di ma ci tàggoote waaye teewul nag nag ma yeesalaatal ndigal bi moo ko sëriñ Seex mu jaar fa mu jaaroon ne ma nanga nga ànd ak moom ci lépp te xam ne fu mën a ne maa ngi ànd ci lépp loolu amee ma wax sëriñ Sidil Muxtaar ne ko këru xasida yi nga xam ne dañ ko fay naalal Seexul Xadiim dañoo bëggoon tegaale xeer yi benn yoon ndax daaw lañ ko tàmbali woon wax waaye jëf ji dafa jiitu tegu xeer wi ba lañ fa jote andi te tàmbalee guñ ko miir na kër gi xaar mi mbaar mbaar mi mu mel ne kër goo gii nga xam ne dafa làmboo lu bari nga xam ne bu doon ci ñuy jàng tubaab complexe lañ koy tudde lépp lu ñuy soxla woo ci kuy jàng xasida dana fa ne mu yaatu mu ñuy jàng xasida mbaar mu yaat mu ñuy bind xasida jàkka ju ne ca biir ñu di ci ñu di ci jullee waxtu juróom barab ñuy tàngale kafe ak i barab ñuy denc ay xalima ak i daa ak fu ñuy jàngi bind ak fu ñuy jàngi ay daaj lépp lu ñuy soxla ci xasida daal dana ne ci biir kër gi daal hmm? alxuraan ak daal di alxuraan di nga xam ne moom moo samp kër gi moom it lu dugg duggaale ko ci dana ci ànd mu wóor ni ñu ko neseree bu noppee bu fi Serigne Touba duggee gën a dégg ñu ñaanoon Serigne bi mu boole nag kenn ku nu tegal xeer bi Serigne bi na ne tànnal naa leen mun Mountakha mu teg xeer bi ma xam ne kon jëmmam la ñu andi muy yow kon nag dafa mel ne noonu Serigne bi wàccoo naa noonu wàccoo naa noonu Serigne Touba nag la ñu moom rek la ñuy xoolee ndax yow sa biir ak ci bitti Serigne Touba la. sëriñ Mountakha moom boo ko doon portalee lu yomb portalee la ci ku ko xamul sëriñ Touba dafa waxoon ne walladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana ni mu ko mën a firee ci waxi wolof mooy sunu borom bii walladina jaahadu fiina ku koy wut ci ku di ko wut ci lu di ko wut ci fu ne dana jàpp ci sa loxo bi ne la maa ngi nii lanahdiyannahum waaye moo wax ne yow Serigne Mountakha nun ñi nga bokkal Serigne Touba jàpp wuñ ne mag ak Serigne lañ la jàpp wuñ ne mbokk roy téef ak roy ak jëwriñ lañ la jàppe ndax loolu lañ gis yow sa pas-pas Serigne Touba ma seereel la ne yow de kàddu googu Serigne bi wax moom ngay doxee ndax ku ne xam na ne la ngay xool ci nit bu nit ki xoolee boppam doo ko gis ci boppam day xam ne Serigne Touba rek ngay xool ci moom kon nag yow itam yaa ngi xool Serigne Touba ci ku ne. di ko xool ci lu ne di ko xool ci fu ne te wóor na tase nga ak moom ci fépp kon nag yàlla na nga dem te yóbbaale na ci fépp loolu moo waral tiraanga ji ñu ne indi kaamil bii ñu jox sëriñ Hamsatu tam xool ba xam ne sëriñ Tuubaa ko yeyoo kon boo ñëwee ñu def ko ci sa loxo mel na ne teg nañ ko ci loxol sëriñ Tuubaa kaamil bi murid yi nañu ko gis ndax barkeelu la or lañ ko dooree. teg ko ci caméra na télé. waaye man de wóor na ma de appale gi ko sëriñ am ba jox ko sëriñ Muntaxa ne fii sëñ Tuubaa man fii ma toog mën na maa waat ne ku gisul kaamil bi tey doo ko gisaat ndaxte sëñ Tuubaa la ko jëmee man mi xam sëñ Muntaxa xam naa ne kaamil bi fa muy ibra mooy ci biir barbu sëñ Tuubaa kenn du ko tëgg di ma may kon addi ma may addi ma may ku la tan war di yàlla ma may fépp am na télé na ko wane bu baax fépp am na télé ne ko fépp am na télé ne ko téye bu baax ñëpp gis ko fépp am na télé kaamil bi itam dafa am lu muy firndeel dégg nga sëñ bi tey kenn du wax ay tey yi mayu ñuy wax ndax wax danga koy egg sa kanam morom ca ñaari sunu kilifa sëñ ñoo wax waaye dama ciy firnde benn kaamil bu may fàttali tubaab bi dañoo bëggoon a jox sëñ Tuubaa kado ñu ne lan la bëgg ñoom ñëpp ñu maase wax ne bëggut alal bëggut dara ci àddina xamul ni lenn luñ ko mën a jox comme nangu ko ko li yi def am na di waxtaan ba am kenn ku ci ne gis naa lenn loo xam ne diiru lim na ci tukki bi moom la doon yor mooy te fu mu jëm jëme ko fa kon jàpp naa ne buñ ko wutul woon jox ko ko moom dana ko nangoo laal loolu rek laa xam te loolu ñu dem tiini si commandé fa téere boobu téere boobu nii la meloon dañ ko doore ci or bi ñu ko indi sëñ bi ba jox ko ko da ko yëkki ko ñaari loxoom teg ko ci dënn bi daal ni téere bii mooy ànd sama digg tubaab yi ndax dañ maa tuumaaloon dóoral ma ne damaa jóg ngir wut nguur tax ma jóg kon ñoom ñëpp bu ñu àndee gëstu waat ne ma xool ba xam ne bëggoo dara bëggoo dara lu alxuraan kon ñoom ñoo yey dañoo yey seen bopp te yàlla ñu ko ko seetloo ci alxuraan bi téere ba da caa dimbali ci kaw alayya lillahi tabaraka wa taala an laa uxrija kitaab min yadi abadan warlu naa ci yàlla ne téere bi du génn sama loxo mukk ba abadan téere boobu ci sëñ di dem ba ñu andi téere bu mel nii ñu andi ko sëñ Xamsatu joxaat la ko ngir sëñ Tuubaa day firi ne téere boobu di ko mandantaal laa ilaaha illallaah bismillaahi kaabil nga ca toog kaabil jóg leen ci kaabil yi kaabil kaabil sëriñ bi nee na nañ ñëpp dégloo andi taxaw man de ma xamoon lu ma ñu sant danaa doole sama cant ci teewaay bii ak jëf ju jii jóge fi ma jóge la ma cay santaat nag moo di man xaadam laa jàppe sama bopp ci bàkki sëriñ bi xaadam waxuma xaadim de xaadam mooy kunoon naa moom laa jàppe sama bopp sama diggante ak njabootu sëriñ sant naa rek jëf jooy ji sëñ Tuubaa rek tax moo jóg ñu jàllale ko ci benn incha allah dégloo leen dégloo leen. waaye nag gannaaw dolli sama cant di gën a yeesal sama jaayante masal ci taalibe yëpp di gën a yeesal sama njëbbal bis ñi nga xam ne jëf Touba ji ju rëy ji lépp li Serigne Touba lépp li liggéey bu Serigne Touba jëmm ji ànd ko kilifaam yi ba comme ñoom Serigne Touba mu féete leen fa mu leen féete féete fa mu féete ñun ñëpp ñu jaboo ñu jaboo Serigne Touba dana tax mu fàttali mu fàttali ko ma fàttali ko loo fàttali ko loo xam ne Cheikh Mouhamadou Bachir moom laa toogal ca njaareem ci guddi maa ko nga ba ci mu fekk ku ko la muy muy waxtaan sëriñ bi muy waxtaan sëriñ bi muy waxtaan bi lool sori lool mu ne waaye sëriñ bi ma am na fulla soo ko toll rek mu toll la loolu la ñu kon mooy lii mooy lii fi mu jógee ak fa mu jëm ak ni mu demee mooy wax sëriñ Basiru joojee dafa wax ba tàng ci xaal mais bu ne waaw waaye waaye waaye sëriñ maam na fu la ko toll rek mu toll kon man ñun ñëpp dañ ci def suñu bët sëñ bi mu yëngu waaye am na lu mu gis am na mu gis. kon alhamdulilah rabil alamin jërëjëf sëñ alhamdulilah rabil alamin ñu boo rek sëñ jërëjëf sëñ bi muy seen lépp day dal soxla mu daal loolu moom day gën kon noonu rek la demee jëlul wax ji di gudd soñu nanu bu baax soñu nanu bu baax jërëjëf Cheikh Hamza yaa ngi sa mbokk yi sa kilifa yi nga àndal sant nañu bu baax mas naa bind as ay ay baat mos naa waaye da ci gën a am solo dama ko xel yaay sama ndaalum xel xel yëpp kon loolu muy lii rek tey sama xel daal na bu baax ndax amuñu benn mébét amuñu benn xemamteef loolu sëñ bi am na jëm fay amul benn xamante tey jii àddale ko ñu jëm suñu xel daan na bu baax ndax sëriñ bi rek lañu wut kon Cheikh Abdou Samad ni ma la ko waxee jëf ji sant naa ci ba cant yem ci yi ngeen ma yéene sëriñ bi santaat duggee ma loxo te muy muy muy muy alali sëriñ Tuubaa nii fi ma jógee fii sëriñ Tuubaa moom laay wuti tekk waaw ci biir dëkk bu gudd bi. mbokki mbokki taalibe yi. mbokki taalibe yi. nañ sant yàlla bu baax. ko boromam bëggee ndax man nanu man sant yàlla bu baax am tamit lu muy def muy di def lu baax di ko sante di ko sante waaye noppal nañu lépp tey dañ góorgóorlu bu baax sëñ bi daa bëgg rek mu doon ay nit ay nitam te ay nitam ñooy nit yàlla loolu rek la ñu bëgg kon sant bu baax te gën a góorgóorlu bu baax bu leen bëgg dara lu baax bu leen nekk ci dara lu baax bu leen def dara lu baax la ci sama bi jëlul ko tudd nga nekk foofu ngir sëriñ bi suñ lépp foofu mooy mooy yem foofu nañ ko moom doon ci mukk waaye bëgg nañ ko ne dolli ci xasida yi lu mu gàtt gàtt solo njabootu xasida ak sëriñ mu xam ne si nekk lu dee mooy liggéeyu sëriñ bi jigéen ma borom jigéen ma yonent liggéeyu sëriñ bi jigéen ma borom liggéeyu ma yonent mooy xas ah waaye ñoom dañu dama leen wax daa leen ko wax ni yàgg naa leen ko wax ñu ne am taw taw rek ko may xaas la ñu am ñoom ñu fekk nekk nekk ci liggéey xas nekk ci xas yi xaas la ñu am. alhamdulilah xaalis la ñoom bu wér a wér xam ne taalibe yëpp war nañ cee ñee da ngeen dund ci fàggulaale rek di yóbbaale xaalis xaalis ngeen am foog ma taw feex taw feex ku bëgg sëñ Tuubaa am waaye yéen xaalis ngeen am dafa ne yéen moom dama dama dama dama fa ma xool sëñ bi rek moo tax tudd ma leen moo tax dama xool laa ko ba may xool sëñ bi rek foofu laa xool ba tax jëlu ko jëlu ko def na jëwoon naa jël ko léegi waaye noonu rek la demee ñoom xar sa ñoom sant leen yàlla bu baax sant leen yàlla bu baax a baax a baax te yéen ngeen jëmee ko kanam looloo tax Cheikh Hamza moo lii lii waral la sëñ bi su waxal rek sëñ bi am na fur ne foo ko toll bu toll la waaw ah, lii rek la du leneen waaw nag dëgg la wax nag ci la am ñu naan mais ñun ñëpp nañ ko xam waaye nag sëriñ ma ko waxoon moo ko waxoon guddi ba ànd ko génn daañu taxaw ne waaye waaye sëriñ bi mu am la foo ko toll rek mu toll mooy lii mooy lii rek loolu kay xanaa alhamdulilah. soxna moom yëngu fenn yëngu fenn sëriñ bi ci boppam. kon nañ nañ nañ nañ nañ koy dolli ci sëriñ bi diñu dolli ñu ànd dañu am sa façon na nga dem ñoo ngi bëgg ñu bëgg ñu bëgg na la ànd ak yow waaye façon ñu sëñ bi ñu jàpp suñu loxo te bu mu dëgër gi ñoo dinu noonu la nga demee wax mënees la wax <laughs> mënees la wax ñu nekk ñu nekk 40 40 waaw 50 waaw.